jullit daal ca alaaxira iqtaraba linnaasi xisaabuhum wàcc na ci Quraysh rek ba yàlla ak leen di yëgal ne dencam yàlla jege na rek waxoon na iqtarabati saa'atu wanshaqqal qamar wax na ataa amrullaahi lépp taxul leen a jàjju mu ne iqtaraba jegeñ na linnaasi ñaari yéefari Makka ñaari way weddi dekki xisaabuhum te sëb yi saab seen de yéefari ñu ngi dew waaye des di leen yàlla yi saab jage na de te mooy pencam yàlla de waxum sa ñoom moo ri boonoon way dëkk nañu fii xam ne ci sàggan da terewul nag ñoom ñi ngi sàgganee adu pour bés boobu bañ a gëm yàlla waaye nañ xam ne jege na rek ba laay ñu ngi wàccee fekk na Abu Hurayrata mu ngi rëdd katam ba di ko tabax de ba tabax ba yëkkatiku balaa jawàccee mu ne bàyyi na far de dem tey dem yàlla jege na ko bàyyi jage na lu tax yàlla ne jage na di kër pencam yàlla ba ko waxee ne junne at ak ñetti téeméer ak juróom-ñett fukki at ak ñenant dafa tey ñëwagut boobu jage mooy lan jege na ci xaq yàlla ndax moom dara soriwul fi moom ñu ngi yëg di dikk ak li teew yëpp benn la moom wala jege ndax faw dana ñëw te lépp lu dikk jege na fi nekk atam ci wén moo fi gën a jege démb ci wéy ndax démb surtout dëgg ci mukk boo nag lii dikk moo gën a jege li nga xam ne wéy na te pencam yàlla faw dana ñëw loolooy maanaam jege gi wala jege na suñ feetee li nga xam ne moo wéy ci àddina àddina bu fekkee juróom-ñaari junne rek la juróom benn junne ya nuyu na yàlla soog a wax ne pencam yàlla jege na juróom benn junni at bu wéyee te li nga xam ne mooy des tuuti toll noonu su fekkee ni lii lii dikk si moo gën a néew li nga xam ne wéy na rek bon li ñëw jege na bu fekkee loolu la nag kon ba yàlla sa seen bindee yi te si laa ñuy wàcce ñu ne woon moo gën a bari fuuf li nga xam ne moo def waaw di ne kenn xamu ko bon nag yàlla mën naa wax ne péncam yàlla jege na de péncam yàlla di nga xam ne ci la ñuy hisaabe jaam ni kooku lu njege de péncam yàlla ñetti xaaj la bu ndaw ak bu digg doomu ak bu mag bu ndaw bi mooy nit ku dee képp ku dee rek sa péncam yàlla taxaw na yow guddi gi doomu mooy bu ñu walee bu tënk ba ñëpp deeyandoo bu mag bi nag mooy bañ dëkkalee ñëpp bañu seen sa yàlla de loolu la wax ne jege na ndax léegi ñëw nit ku nekk bu ko yàlla bindee garab ba mu bindoo rek la tàmbali ab dox jëm fee jëm yàlla noppi gum noppi benn xaaj la bu jóge ci moom te dootu dellu si su fekkee ni jóor bu jóor waxtu mu nekk rek ña ngi cee te doo doolee ci lum jëm ci jeex la jëm dund bi ay fan la ay bis bu ay ay weer ay at bis bu ñëw ngorte la boo xam ne màbb na benn dund ci tabaxal dundam nit ñi noppi bu ñëw xaaj la bo xam ne wàññeeku na ci jiwu nooy nit ki kon ñu ngi tàggan xalaat gëm yàlla waaye ñëw na ba noppi nekk ba mu juddoo daxaw yoonu at mu nekk fat la weer wu manding la at mu nekk manding la weer wu nekk la bés bu nekk ak ñil la déegu bu mu natt bu mu natt ab jéego la bu mu jéggi te fu jëm ci dee rek jëm kon nag ñu ne ko sax ne dee ba noppi jege naa dee rek maa yaatihim dikkal ci leen min zikrin alquran min rabbihim mu di tukkee fa borom seen moo sin bu di min sos ak wàcceem daf gannaaw def ila stamalo ila stamao ndare bu déglu nañ ko um te ñoom yàlla xam boona danañu farantu rek ñoom ñu déglu alxuraan rek ñu koy déglu waaye ñu ngay farantu rek ñu di alxuraan rek laa yettoon ngir muy aji sagal xulóobum ay xol seen walis maana am mi de duñ déglu sax maana yi nga xam ne moom la alxuraan lamboo lim li xéemu xéemu wa asaro nëbb nañu najwaa nee alladi na ñaaña sala moo tooñ ñu alxames ak yéen Muhammad ñu ne ilaa basarun ndax doomu aadama la mislukum ci dikkam seen. yéen nañ seen yéey mooy seen konkare ba daw woon nañ seet li ñuy wax Muhammad boo xamee ne jiitu yaaram yi daje dinañ xaj ci. ñu daje liggéey nag dafa taatunu ndax da ngeen dikkal fi xaram jabar ñu ne Muhammad ab jabar la bu leen ko topp waa tum te yéen si noonu da xam ne jabar la. xul waxal rabbi borom sama. yàlla mu gën a mu xamal xaw la wax ci sama ay jëlee aji nekk ci asamaan wala rek suuf woo moom comme ni ma aji dégg loolu dañuy bootal ko alaar mu aji xam la mu bal ba it xaaloo wax nañu ne alxaasu alaamin jaxasoo ji giwent lañ ñu ne du dara lu Muhammad dafay giwent rek di faraat yi dajale giwent ñu jaxasoo rek moom mooy alxuraan bal ba it duut na mu ko ñu ne déedéet naar layu Muhammad duut bal ba la Muhammad ab waykat la alxuraan way rek la nañ ko muñal ba mu dee na waykat yu njëkk ya dee woon kon yaa ati naa anam wuutenu ati ci kaw si sama la naka yónnee woon la wala na way njëkk ña bëggee ñu gëm ne ab yonent la nañu indi gëlëm bu mel ni gëlëm Saalihu dañu indi ne bu mel ni Muusa dañu indi loxo lu mel ni loxo Muusa ak saabal yeneen saaje waaw kay yonent la lay def su fekkee mënu loolu la yoon maa am buur ne waaye ma amal gëmutoon xam loogu ci dëkk bi leen ñun xarit ñu ñëw dëkk àlata ñun alal leen konton kaatu fi wi laaj nag mooy lan mooy ña ko jëkkoon a laaj bañ leen ko wanee itam taxutoon ñu gëm te buñ gëmut la ca tegu woon mooy yàlla alal na leen yéen it yéen a ngi laaji kaafir te su fekkee it ngeen gëm kon lu cay tegu ngeen di xalaku rek maanaam seen xal tere rek la laaj kaafir daal kuy laaj ak yonent kaafir ngir dëng mu ngi mel ni li yaaram di wax bu jote ak deexam ak njëfoom mu yaaram di di jote naa ak deexam ak njëfoom benn waaye dafa mas a yóbbu xaram ba ci àll ba bur ko rendi ba mu paaka ba ci paaka ba mu téere ba lañ ba réer ko ñu ngi ko mu bu ko fekk xarma xarma ba ku res jote paaka ba waaw mu rendi ko jëlee moo tax pour waxat nañu bu defar ci loolu sabab yu alaku ñu ne yaa jot sa dee ak sa njëkku naqar mooma waaye ñoom di laaj kawteef gannaaw bu alxuraan wàccee ak kawteef ngeen ñu ngi woon yëpp ñu ngi tax yaa di seen kawteef bi ñu dëgg dañ laajee kawteef yooyu ñu rek day gis bu feeñee du tax ñu gëm te bu ñu gëmul foog ñaar ak leen kon dee rek dee rek la ñu laajee moo tax yàlla ba ñu wuteen ci loolu boo xamee nag ne laaj nañ kaw ci ba yàlla dañoo kaw ci te gëmuñ la nga xam ne moo daloon ñu leen jëkkoon ba nga xam ne ne kaw ci a gëm yàlla dafa wàcc ci ñoom mbugal de dafa mbugal ma wàccee ñoom yëfar ya doon weddi di daw nag bëgg raw mbugal ma te mënuñoo raw malaaka yaa ngi naa leen laa tar ko bu daw war ñoo dellu leen ilaa maa utriftum jëm ci la xéewale fa yoon bi su ma masakini ci ma aji dëkkuwaay teen daala ko bu boye fu doon def na laaj leen de ba nga xamee nag ne ñu leen di alak ñu na ñooñ dëkk bu ñu ràññal la yàlla na ma jëlaay ji mooy ñooñ fa góor ba nga xamee ne wedd nañ seen yonent ba ba malaaka xaaci leen ñu alaku nag bëgg a daw waaw bëgg a daw mbugal ma malaaka yi ne leen déedéet xaar leen rek xaaroo ñu wax ne yaa way lana est-ce que nag alak sunu ñu naan ak nun su naa nekkoon nonu sali di way weddi ba ma salat dañu gis kañ woni le ba dax waawum di wax seen ata jaal naa am ban mu jëlee xas itam ñu cam mbay mi góob ak suñ ko bànde ñu rey leen ñoom ñëpp xaalu dina nit mu di dee wa maa naa mun de bindunu hmm? sama sama wala la suuf dama jël kon xalaat leen afahum ndax ñoom yow meena danañu gëm ñoom kaafir yi nga xam ne wàcce nañ ko ci xeet yi leen jëkkoon ñi nga xam ne wàcce woon nañ ci ñoom gëmuñu woon ndax ñoom su wàccee danañ gëm déedéet suñ gëmu noonu jawar a top alaku wa ma arsalna ñun day mosuñoo yónni xam la ka jag njëkk sa illaa rijaalan bare góor ñu waaye ñu ñett di tontu ne ndax Muhammad Muhammad dara lu mooy doomu adama wax nañ ko léegi mën a nekk ab yonent ci ñun yàlla ne ay góor rek la mas di yónni nag ci mboolem xeet ñu yoon yëpp seen yonent ay góor lañu woon naka fi yëpp yonent rek fasaloo laaj leen ahla zikri mu di tawreet ak linjiil in kuntum ndem nekk ngeen laa taalamuuna a leen de su fekkee ne xamu leen histoire àddina ba xam ne yonent yu jëkk yëpp ay góor lañu woon rek ñu bàyyee ko ci nit laaj leen boo ko di tawreet ak linjiil ñu jàngoon te leen jëkkee ñu wax leen xam ne loolu mooy dëgg de ay góor rek la ma yàlla ma si yónni de ñu ne Muhammad nii nga xam ne fay lekk ñam di dem ci jab di denc jabar waaw kooku du yonentab yàlla buur ne wama jaal naa um deful leen ñoom yonent yi ni di borom yaram laa yàqu na ñu lekk suñu taama ñam yàlla deful yonent yi lu mooy doomu aadama te doomu aadama yàlla deful leen ñuy jëm yuy dund te duñ lekk ñam de faw ñu lekk wama kaanoo nekku ñu xaalis dina di way jël ab yonent itam du dee ci fokk mu dee ma sa dax naa moom topp mu dëggalal leen ga ba nga xamee ne weddi nañ yonentu ya yàlla dëhël woon na leen ne dana leen dimbale yàlla dëggal na dëhël booba di dimbale leen musal leen ñoom ñett ñoom ak ñi leen gëm ba anjay naa tan musal leen wamal na saaw ñu soob du yàlla ma see xalaj aw xeet yonentu ya ñoom mucc nañ ñoom ku leen gëm waa xalaj naa tan xalaj ak ñu sëñ bi ña doon canloo yonent yi nag ñoom la yàlla yi xalak de laqad anzalna nun day wasal nanu ilaykum jëm ci yéen kitaaban alquran fii aju nekk la ci moom zikrukum dalax nga seen zikrukum luuxa seen zikrukum ak waat seen de afala taqiluna te ngeen xelu yàlla wàcce na ci yéen xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam téere boo xam ne seen teraanga la rek mooy alquran ji de te ci seen làkk la wàcc alquran ji la itam ak waat la ñaar leen de na ngeen nag ba ngeen gëm ko ba yonent bi sallallahu alayhi bëggee génn àddina saxaaba yi dañ ñëw seet ko ci nen lay Aysata nakañ nayoo mu daal jooy sallallahu alayhi wa sallam ne yàlla leen yàlla nuyu léegi jege na ma taxalikoog yéen di jot na pour ma dellu ci sama borom dellu ci Sidratul Muntaha ma dee nag sama ñooñ ñi ma gën jege nañ ma sang ñu ma sangee ba noppi nañ ma sàng ci yére yi ma sol wala sama mandaani yaman yére ma denc ndem neex na leen ñu ma sàngee ba noppi génn leen yéen ñëpp bàyyi ma fi julli lay jëkk a dugg ànd ak mbooloom jullee ma ñu demee Mikaayil dugg ànd ak mbooloom jullee ma ñu demee Israfil ànd ak mbooloom ñëw jullee ma ñu demee Malakul Mawt soog a ñëw ànd ak mbooloom jullee ma danaa sa waxtu nag ñoom danañ pare bu boobaa dugg leen waaw ku nekk ñëw julli julleem dem yonent nañ ko jullee ku ne ngay ñëw julli sa julli rek dem mu ne na ngeen ma fi bàyyi nag te ñëpp jullee ma bu ko defee nag dem sax maa suur saaba ya ne ko yonent loolu mënul nekk ñoom ko muñ woon bi dina dee yow yaay suñu leer yaay suñu teraanga yaay suñu dëgg yi ñu yaay suñu buur bi nga xam ne yaa ate suñu diggante lépp lu xew ci yow la ñuy jëm ci bu la fi yàlla jëlee ñu suñu jëm yow kay doo dee ñu ne ah kay waaye ñaar bàyyi naa fi ñaari waa de kat wax ak dee ci nga xam ne du wax na ko ñaari waat yi ñu wax la mooy alquran bi ñu wax ngeen dégg benn bi waxul dara waaye ñu ngi def ngeen di gis loolu ñaar yooyu moom laa fi bàyyi lépp bu ngeen wutee ci mbir nag dem leen ci alquran ngeen jaamu ate dem leen ci sama hadis ñu ngi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ñu ngi leen nit ci seen ngeen jàpp ci ñaar yooyu loolu la yonent ba sallallahu alayhi wa sallam tàggoog ñoom alquran bi moom la ñu yonent bi bàyyi yàlla ñu wax ne wàcc naa joo xam ne seen teraanga la seen ak waat la na ngeen xenu na ngeen ko seet bu baax ba tam xasoon naa bari na bu ñu xalagee min xale ci ñu dëkk ab dëkk yàgg nañoo weddi yàlla yàlla xarak xarak leen de damm leen de insha allah seen sos baada baada ci ginnaaw seen xaw man aw nit aaxar na ñeneen de wala ma axastu raa ñu yëgee baax sama mbugal suñu ba nga xam ne ñu mbugal maa ngay ñëw ñu ñoom yor si noonu danañu daw mi aji mbugal ma de waa leen mbugal ma jege na ñoom yëfari jëkk ya waa dañu daw ba bëgg a dee dañu dawee nag malaaka yaa leen di tontu naa leen laa sarti boo waaye bu leen daw war ji moo dellu leen ilaa maa usriftum suñu jëm jële la xéewoo de foon leen de da ngeen doon xéewoo ko bànneexu léegi day gore leen rek dem leen ci seen xéew xaar wa masaakinikum ak ci dëkkuwaay seen dem leen toog ci seen néew daalakum loolu def na leen xaaroon wax na yaa waylatanaa est-ce que na sarata suñu inaanaka nun إنه من إسرائيل ويدي وما صالت بريسين تغير إلى بعد دعوهم لي وقتنا فجعلناهم بني جلين حسيدا من كم ليهم قوبة قوبان رس خامي بن من ويديه وما خلقنا من الجنة سماء سماء ولا الله سوء وما بينهما لنا تجدن كفين لا جنة من ويفعل كذا yàlla jubul asamaan fii ngeen fi ak suuf si da leen xenu dindi ko ci fontu rek bind na ko ndax ñu fekk loo ca kattanam ak jëriñu fi ñun jaam yi loolu naa jaam yi gisuma ci ñoom bénéfice ñoom ñooy bénéfice ci man rek yàlla bëggul benn njëriñ ci ñun waaye bind nañu pour jëriñu rek law naa doonte namoon nanu an na taxisa bu ñu jàppat laawan foo da taxas naaw kon tey ñu jàpp ko ñu nga dund naa ci mbir yàlla ne yàlla bëggul jabar de yàlla du fowantu jabar kon du dem ci Mariam ak nit ki de kon mën naa am gën a foor Mariam xóorul ak malaaka yi mbindeefi tedd yi nga ñoom ñu la ca téer yàlla ba yàlla dindi leen ci xéewal mu waay ko ñuñ gis ba rek ñuñ daan waaye liñ sajal waaw mbusuñu suñu mbusuñu kii mbusuñu dee waaw ñooñu ñoo gën a foor de su fekkoon yàlla am na soxla ci jigéen kon foofu la koy wute de waaye du ñëw di wàcc ci suuf si ñu seet waaw jigéen joo xam ne dafay lekk ñu naan di tëjal di daanu waaye di gis rek kooku su fekkoon yàlla soxla na jabarit kooku war na jabaram de kooku jabarit ñu ngi rek la. waaw kon dana am defal ñu gën a foor Mariam de yàlla moom ak moom yàlla moom malaayika yi yàlla moom aljana boobu ñun ñoo fa nekk su fekkoon jabar foor na ko kon xam nañu ñun ñu gën a foor fu Mariam demoon foofa la tey jamono ji du doon ci Mariam rek. ban day naq ñu gën a mos a ñu gën a xam ci dëgg awi baat yi ci suufam. xëy na ko tam demee ko dañu ko am ci dëgg woo mu saa yàq waa ji dem na nga yàlla dana jàpp dëgg na sànni ko ci naar bu dëgg da ngay ci naar nag daal di ko yàq demee ko leen. baat yi lu mu rëy rëy rëy waaw ak wëndeelu rek la am dëgg moo am cong moo xam ne bu ko songee baat yi rek baat yi dem dëgg dootu ci def wala comme ñu naan leen alwaylu dafa mbugal ñu maa ko si woon jox leen wax ko mbugal mu mat dana wàcc ci yéen léegi yéen ñi waxal yàlla jawar rek moo du yàlla def jawar wala ñaan ko man ci sama ñu nekk ci asamaan juróom yaar wala def juróom yaar yàlla moom mboolem asamaan juróom-yaar ak suuf juróom-yaar ak liñ la boo ci mbir rek moom lañ dàqante nag ak ndongo ba mu ne ndoo moom te ñooy malaayika yi daal sax ñu ne rek ñu ne ba ñu ne ko jaamu te yàlla ngeen ko bañ a jaamu ñu wa waaw moom faalewu leen malaayika yi nga xam ne ñoo gën a foor ñoom jaamu yàlla lañ te dañ koy jaamu bu dee bëccëg te day dugg wala sax dinañ ko noppi te ñoom duñ yokk mu dégg yéen doomu aadama ñoo xam ne lu ngeen def mu lokkal bu taxawee ba mu yàgg taxawaay ba lokkal ko di déggee ba mu ko bu tëddee ba mu yàgg tëdd lokkal ko ay lekk sax bu lekkee ba mu yàgg lott lekkal ko ñun ñu mën a tuut ba lu ngeen def lott ñu ne wu leen malaaka yi nga xam ne ñoom ba fi ba yàlla soo leen liggéey ba tey jaamu yàlla ko ñun te ñoom duñ sonn boo nag fekkee jaamu leen ko. yéen yéen a waaye yàlla moom faale wu bu fekkee ku ko jaamu rek la am na malaayika yi rek te doon na danañu sabra mbéy mi bu ñu woon naa la bëccëg laa yàq turoon dogal la fii malaaka xam nga ne jaamu yàlla am na lam ñu mel ci yow guddi bëccëg ñu ngi rek bu dogal te jëm jamono amuñ dara leen di soxlaal waaw wëli wëli sabbaal. ñuy nokki nag ci yow xam ne loo mën di def yaa ngi nokki malaaka yi dem noonu la sabal nañ moom bu dee ba cër mu ngay sabal lekk duñ naan duñ nelaw duñ feebar ñooñu su fekkee yàlla ku ko jàmm la bëgg ñooñu doy nañ rek am bay ñu taxaw loolu jàpp nañu ay ay yàlla mais loolu ñu tuddee ci suuf am dañuy wëcc yàlla moomu sos mbir yi dem di jaamu yàlla joo xam ne ci suuf si lañ ko jëlee goj ak wurus ak xaalis ak garab ñu jëmbat wala safara wuñ taal yooyu muy jaam um ñoom juróom loolu dekkal woon dee ndax defe ngeen ne ndax moos tere yooyu ñuy jaam gis ka ci bii catholique bi tawat ba mu rafet mu wër ko mansom di ko jaamu defe na ndax moo koy rey di ko dekkal ndax moo koy wërsëgal ñam muy dekkal ci xeetu aw ba yem rafet mu ko jaamu defe naa ndax dañu woo moo koy dundal dara yi xam nañ ne yooyu yàlla de ñoom daf nañ gën a yonent yi war nga door léegi nag wàññi ko nañ def rek mën a doy yàlla de aw bëri tey fu yàlla waaye doomu aadama war na faa mën a nekk law kaan doonte nekkoon ak lii maa ci ñoom ñaar asamaan ak suuf alias na ay yàlla illallahu kulul yàlla dafa ko defaa kon te ñu yàqu ñoom ñaar de waaye li ñuy woote mënul nekk de yàlla judul yàlla kooku mustahil la mënul xam ndax su fi jëlee yàlla nekkoon ci asamaan ak suuf kon asamaan ak suuf yàqu de yàlla mooy ki nga xam ne kattanam dara la tënu ko lum nam ma rek loola dana am nam ko namee su fekkoon ne yàlla yaar la dana gën yàlla ñu ngi doon dana am kattan lu mel ni lu gën yàlla ji am te lum nam rek loola dal di am dara du ko lottal ci yàlla yi du amee ku ci nekk am na kattan lu mat dara lottalu ko laa budda yàlla ji am na kattan su ko mu yëngal ñu su ko mu dalloo ko yàlla ji ci des nag kon du ñàkk jëf yàlla ji nag naan ji dégg yëngatu yàlla ji ci des na dal te kon su fekkee seen i kàttan a xam boole yëngatoo dal ci benn taxawaay nag ah su fekkee ne jenn yàlla ji li na am na nag ci des lam na ñu xam ne jenn yàlla ji ëpp na kàttan lenn nit kon kon dootu kon kon nga xam ne ne lott na moom du mën a doon doon yàlla ndax yàlla du lott ci dara di nga xamee ne loolu amul jàng bii ñu sosoo ba léegi ñu dem ci benn noot su bëggee yëngatu yëngatu yéen bëggee dal dal leen dal su bëggee bëccëg bëccëg am su bëggee guddi guddi am loolu genn yàlla rek a ko mën waaye suñ doon ñaar danañ xëccoo suñ ko ne danañ daañ xeex ñoom yaaru yàlla yi suñ xeexee ñoom yaaru yàlla yi laa guddal kenn dana jëman morom ñu man bon duroo tur yàlla mbindeef la su fekkee nag ni jàmm yàlla ji lottu na fay dañ man ko te ñoom ñëpp yàlla lañ te du jaar ci tam jaar na ci morom ma kon yàlla ji nopp itam boo léegi mën naa mën naa am ñu nopp ko kon dootuñ ay yàlla ñoom ñaar ñëpp ñu lottu lañ bon yàlla amul moo tax de yaari yàlla soo amoon waa adduna si ci bu yàgg rek xam ne mbir mi mënuñu woon nekk lu mooy ci ñi ron jënd yàlla subhanallah ci duma sa loolu rabbi ansite borom ala ko maalo si borom jëy la ñu wax ko de saa teer yàlla sell na ci li ñuy ko am maayo xalu ci la ko jëf boobu sa ñoom ñu solu noonu jëf ay moom mooy buur bi nga xam ne soppaniku mutlaq moom la ñuy am nu ko neex soppanikoo kenn du laaj la muy def lu tax yàlla def nangam boobu kenn dañu ko wax yàlla lu ko soob rek mu def mu tey liggéey ku yàlla nag dañ ngay laal say jëf de liggéey jub ñu xam ne jub na liggéey jubut ñu ne jubut yàlla nag moom kenn du laaj la muy def tool yi la ngor tool yi bi lëm di jeex ko yàlla kenn la amut doo fi di nelaw lay fa tamit ji seenu woo sa noon basiir jël na ko doo fi di la faari nag laa yi solo xam maa ya mu sa doon jël na ku dul yàlla daañ la laaj seen yàlla kenn du ko laaj jëfam su ko neexoon mu bind jaam ko ci topp yàlla muy topp yàlla te ku mooy yàlla mukk dëgg yàlla mu ko safara xam na loolu waaye kenn du ko ne lu tax ndaxte moom tooñ mën nga am ci jëfam wàññeeku mën nga am ci jëfam tooñ mooy soppandiku ci ñëfi jàmbur yàlla nag moom lépp lu mu soppandiku ci ñëfam la soppandiku moo tax moom tooñ mën nga am ci jëfam yàlla kenn du ko laaj ba rek lu mu def rek moom la balaa mu ay jëfam mucc na amul genn wàññeeku ay meloom mucc na amul genn wàññeeku waxam mucc na amul genn wàññeeku te loolu yàlla nag moo ko moo ko mën def am ba ñu ci taxasoo jàpp nañu ñun doole yi ñu yàlla aaree ak ñu dul yàlla te ñoo bëgg a fàtte yàlla ji dul yàlla pour waxal xaatoo lay seen ñu ngeen na jël yàlla ji mën a am na fi ñu ngeen bàyyi ko taxawal def amuñu leen ci loolu abaab yi alquran zikru man maay mooy waag ak ñaam rek man ci sama xeet ñu ci saaba yi wa zikru man qabli yi ak waag ak ñama jëkkoon ne ci xeet alquran maa ngi leen koy waade te moom lañ waade woon ñi nga xam ne ñooma jëkkoon itam de ci xeet tawrat ak ñu jile ñu moom ci jile yëpp ci yàlla lañ yoo xam ne yëpp ñu ngi mel ne alxuraan yooyu lépp alxuraan la te amul benn benn téere nag boo xam ne mas na saxal na yàlla jublu yàlla xam na de sant yi ak soroom dañu bëri seen daara a xamuñ naa laa ko dëgg boobu ñoom moo leen doon wéy xamuñ dëgg daal moo tax ñu dëgg ko wa maa arsalnaa ñun xam ci dëgg li ko rek yaa yaa di buur booy jaamu ci dëgg yaa am na dañoon wax ñu ñu wéetal ngeen mag jaamu de yàlla mos la ñu ak yonent ci xaw xeet lu man waat na nit waaw ne leen ni yàlla kenn nga waa am kuy jaamu jaamu yàlla rek waxaalu wax na na am am ak yërëm doo na leen doo ñu yàlla am doo waxal nañ ko jabar na am am ak yërëm doo na leen doo ñu yàlla am doo waxal nañ ko jabar loolu dañ ñu waxal ko doomu far il faut que yàlla ñu mën a tëj doomu jigéen yàlla la nasaara ne Iisaa doomu yàlla la jabar ñu ne Useyr doomu yàlla la alors que man ca tam ban bëri dina baax ñu jaam ñu promono ñu ñu jaroon malaaka yi ñu leen di di ñu foor yëpp jaam yàlla lañ yàlla leen jox teranga rek te seen teranga mooy nekk dañ nekk di jaamu yàlla laa yas la woon jiitu jiitu bi la xaw li ci wax te ñoom ñu jiitu yàlla ci a jëf yaa am réew ci ndigalam de ñoom ñu ndigal yàlla la ñuy jëf rek yàlla mu doon mu xam moom bu maa bay na ay biir la nekk ca jëf ja jëfee wa maa xam ko ay nekk ca gannaaw seen ne mooy lañ fa koy jëf rek wala soona ramut ñu ilaa lu may soobee mbala ñu xam ne que sax mooy yàlla ñu ñaan ko de ilaa lu may soobee mbala ñu ñaan ko mu tànn de te duñ duñ duñ am ñoom malaaka yi lu mooy koo xam ne yàlla mooy koo xam ne gëm na yàlla de am ramu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mooy moo mooy njël benn ramu kër yi so ram mooy yonent yonent malaaka yi wàll yi yëpp mu jigi ramu waaye yonent ne safaati yaa safaay yi te amra moom ñeel na ñi nga xam ne dañoo am ay bàkkaar waaye ku gëmul yàlla moom li yàgg yàgg am ku koy amule moom ñoom malaaka mustuqoona war a dal lañu min xasati ñu ragal moom buur ba de malaaka yi ko wax na mu ñun ci ñoom ñu yaa kaman ilaahum yàlla la ma ñun doon ku dul yàlla ba saali ko soo xale na ci biir noonu fay ko jaanoo jaanoo te bàyyi ko cam nañ ba ma jiw nañ ko ba ñu ne waaye bu kaale ñu def ku wax tàkkal yàlla ko kaale koo mën a doon yàlla dana la bugal de te bugal moom mooy safara nakal ma ba mu yëkkati makka ñu di tàkkal yàlla ko kaale ak doon ñoom itam yàlla dana leen bugal de awalam yàlla wax na moom yàlla dafa dale ci bopp saare ba fii ak yonent lay faral dañ doon wet yónnee ku yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne basharun mislukum ne doomu aadama rek la war a doon yonent indi ne lay saxal ne yonent bi yonent bi Yàlla la te yonent yee ku ay doomu aadama lañ de woowu lay taxaw na léegi nag mu saxal ne Yàlla kenn la amut bokkaale amut jabar amut doom ñu ngi yëngi juróom benn lay yoo xam ne moo di ay layam ci loolu mu soxal ci biir tamit rek awa alam yaroo awa lam yaroo ndax gis ndax xamu alladina ñaan ko fa wala dëgg ana sama dina kaa ko maam juróom yaar wala baa ko juróom yaar kaan ko amee ko nañu rafkan nga aji taxaloo ko fa fa maam waa tam taxale leen ah xamu ne ne asamaan ak suuf bu ngeen leen lenn la ñoon lenn yaram la ñoon dañoo taxaloo yàllaa ko teqale yëkkati asamaan mu ngi géej mu def ab suuf mu def ci suuf ci dëkkuwaay ñee nit ñi ngelaw li nekk ci diggante bi taw bi di taw ci diggante bi gàncax bi di sax ci diggante te doonu seen teqalew doon kon yéen bi ngeen am fu ngeen dundee teqale asamaan ak suuf ñu ne ngelaw la bind mu dox seen diggante teqale leen ñu ne bon xanaa suuf a jëkk suuf la yàlla jëkk a bind bañ teqali ko maanaam bañ bañ toqalee nekk bi leen bañ bañ bañ leen toqalee asamaan nañ njëkk junni jëm kaw suuf des ñoom bon loolu des na ne suufaloon cosaan wala ñoom ñëpp dañ tegaloo woon gannaaw gannaaw yàlla toog toqalee njëkk ci asamaan bi mu soree suuf ñu mu ko soree ñu ne doxal juróom téeméer asamaan su ne moroom may dem noonu ci def loolu bind asamaan suuf suuf mel nii mu mel ngeen dëkk ko asamaan mel nii mu mel suuf suuf leen xam ngeen ne kooku kenn la tëwéet na te kooku rek mooy rek nga am ko def te yàlla yi ñuy woote yëpp day amu ci jëme yàlla ñu mën a ni moo def asamaan suuf ñu toog léegi ñu kër kër yi naa dañuy seet ci kaw xam nañ ne bon duub ñoom ñoo def kaw def wa jaamaa def na mu mel maay ci ndox kullu shay'in yasluhu illa ahlihi yeneen kawate ba boobu yàlla moo soof ñëpp yi doomu ak bàyyima ak njaale ak gàncax yi yëpp yàlla leen bind te ñoom ci ci ndox la leen bindee ndox mooy sabab sabab bi bind ci ndox ci la gàncax gi juddoo te ñoram ñoram pepp pepp moom bu doomu aadama yi dina ñuy dundee. gàncax gi nga xam ne jur gi ñu ko ci ndox la ko yàlla saxale. garab yee njungat yee doomu aadama yi xam nga ne bu taxu gën a ndox ñu dund amul luy dund ci àddina daal te du ndox ko a dund. nit ki laa ilaaha illallah wa mel ci alaaxira liy dund ci alaaxira laa ilaaha illallah wa ko tax dund waaye ci ci àdduna yi lépp lu ñu dund loxo ko tax dund rek yàlla ji lépp ci loxo lañ jógee lu may aadama ci suuf la bàyyi ko iblis ci takk takkam safara la bàyyi ko malaayika yi ci leer lañ jógee waaye doomu aadama li ko féete suuf ñëpp ñoom ci loxo la leen yàlla dundalee rek afalaa yëngu-yëngu si lañu gëm yàlla mi leen bind ba noppi bind asamaan ak suuf jàqale leen bind ndox mi nga xam ne ñëpp luy dund ci lay dundee loolu day leen tegtal ci ne kooku kenn la sëñ yéen te mooy yooyu jaam lay ñaareel ba ba jaam naa def na ko yàlla ci suuf waaw ci yàlla ay ak tamit ren jii bu yëngatu ak ji moom ñoom de te yàlla leen bindal ba ji nga xam ne. ñoom la yàlla sompee suuf si suuf si duñ ko gis nii ci kaw géej lañ ko teg su tax si nag ba ñu ko yàlla sompee ba dafay yëngatu ñu nga gis parce que ci kaw gi bon suuf si lay def waaye yàlla bind ay doj juróom benn téeméeri junne yi doj samp leen ci suuf si ñu téye suuf moo tax yëngu tuur ndax yëngu tuur rek du def doomu aadama moom daal di ndax te su suuf si yëngu tuur rek kenn dootu ko bëgg a dund. waaw waaye yàlla fonk na ba ñëw day jaay day jaay wu gën ngeen loolu day seen tegtal ci ne ngeen xam ne ci def loolu kenn la na te mooy ay jaam wa jaanaatoon def yaa ci bëj yor ci jaay gën a ay Mm. waaw ba ñu samp ci suuf mm. te mu tàgg ay yoon yoo xam ne ci la ñu ñaaw bu ñu bëggee tukki waaw loolu booy ñoom yëkkëral jëm ci seen i maqaasi te dëkk bëgg a tukki am na yoon wu dafa yaakaar rek amul ji dëkk baa dëkk bu ndaw bu magaayam amul benn dëkk bu amul yoon dëkk boo bëgg a dem rek am na yoon waya bu màggal la ca rek mm. lu yi rëy rëy te di yoon yaa dox ci kaw ba léegi ak ci léegi ba léegi da nga xam ne ngeen mën caa aw dem ci seen i wajaal naa def na sama sama am xastan mu jub ceeb maa ko mu wattu ñu defalee na asamaan ci muy ceeb moo xam ne ñu ngi leen tiim mel ni sa ceegam ñëwee nga xam ne yàlla wat moo ko ci daanu mais su fekkoon ni day foo toll ne asamaan nañu daanu ci sa booy sa du du neex mukk waaye na asamaan ba nga ne yéen ñëpp am ngeen ko ruti asamaan du daanu ci seen kaw woon dañoo am nag moo di gën a wéy dëgg lañ noonu alaati awli saafiri ci asamaan ànd ak loolu yëpp kat li ma leen defal ci asamaan jant beeg weer weeg guddi yi ak li ñu làmboo du tax ngeen fàttaliku ne lii kat ko bind mooy waaw yàlla te mooy di ko jaam ci benn buuram àddina bi yowoon ci néegam rek yóbbu la ci néeg bu rafet faal bu rëy waaw bu bëri néeg ba ma yëpp sa waxtaan mooy dañ ma firee te jiw waaw te président gis naa ko nangam gis naa nangam yàlla mi nga xam ne moo leen tam moo leen bindal suuf si de dafa leen asamaan ci dawal ci jant bee weer wi <coughs> ak ji ci soxal garab yi suuf yi xonq waaw jur gi waaw pare leen jox ko te loolu sax yéen bu ko seet bu ngeen seet ne lii ay tawajëf la yoo xam ne ci ko def yëpp ne mooy ay jaamu woowu moom la fi mooy pour bi xam ne lay ñu doon def alhamdulilah mu dégg leen wa naara ak bëccëg wa sam ba jant wal xamar ak weer bu dul guddi moo <coughs> guddi rek gënu dee ndax da ngeen am soxla bëccëg rek day leen ndax da ngeen di sonn bëccëg bëgg bu ngeen noppaloo ko yàlla digal leen guddi digal leen bëccëg bëccëg yéen ngeen di nekk ci seen i soxla su guddee ngeen noppalu jant bi waaw bëccëgee jant bi sant bu guddee weeru sant ñoom ñaar dañuy wutoonte te duñu daje mukk ku ne ngay daw ci ku gëm doot du daje morom loolu bi moom danañu see danañu see ci salatin ci salatin kon waaw mooy daw waaye bi nga xamante ci la guddi weer jant day weer wi di di daw ñu ne kulub mooy wëndeelu waaw di jant day weer ñu ne daw waaw ci kulub ja di séy ci nga xam ne ñu ne gënuñ séy ci géej loolu la alxuraan dëggal nag waaw wasam sa tajri ñu la wax ñu def ne kulub képp yës ba woon a danañu dox ci falakin ci kulub seen de kulub bi moo dal waaw ñu jën yi ak jant bi ñoom ñooy daw ci seen biir men di fee naka nga xam ne ma la jën yi di fee ga géej ga juróom dañuy aangoog yoo xam ne li ci ne tegtal na leen ne yàlla rek kenn la te wéet na te moo yow jaamu de feetu asamaan moo doon kaase fa ñanam sel ga guddi mooy juróomeel bëccëg mooy juróom benneel rek maa jaanaale basarin min qablikal xul la kooku lu ko wasal wàcc na ba nga xam ne ne éefaru Makka dañ na waaye Muhammad la jël nañu waaye nañ ñu rek yàgg yàgg dana dee su dee ñu naxul nañ nekk rek ba mu dee ñu ne nañ defee loolu Muhammad dana dee wóor ne wama jaan naan day defaru li basari ñu ñaan doomu aadama min xam ku njëkk dafa alxul def béel wax dëgg dee day moom du jaar xaw Muhammad day dana dee ndax musuma sàkk doomu aadama ñu mu dee waaye nag laaj jaan boobu affaire yi nit ndax ngeen dee nga yow waxum ñoom alxaalidoona ndax way dee lañu su fekkee Muhammad dana dee rek lañu yaakaar ndax Muhammad moom rek ay dee bu Muhammad dee ndax ñoom su lañuy def maanaam dee de kullu nafsin def bakkan zaa'iqatul mawt aji mos la mu dee dee moom ku nekk dana ko mos de dee moom ma danga ko kenn naan waaye bu ñëpp la amul kulu dee yonent bi dana dee su koy dee dana dee bon ñuy wax leneen lu mooy deekee dee moom yéen pour yéen ñëpp la wa nablookum dana mu sàkku leen bi sari jaay wal xayri yiw danaa leen nattu yiw ak xay yi tàng ñax yi tàng koor yi tàng ràgg yi tàng tan bi mu di nattu le wakul yow ma def na delloo ñu leen ànd ak ñoom ñu def ay fay lay jërëjëf way daaraaka dem ci sono le ci ñaan ko fa la ñu ñu taxu yoonaka dañu jàppale ilaahu sallallahu ñu ngi gisee yeneen dër yi ñu ngi bañ a di ko di ko ñaawal ñu naan ah ba moom man de àll bi mooy waa jënd xam ne suuf bi nag mooy ay yële àll yàlla mooy yàlla jëlaat waaye ñu ngi ay yàlla yàlla na la jot moom man mii woo ko ñoom saa su la woyee ak lañu di ci kër amaan di ci kër amaan moom ñoom saa su la woyee ak lañu ba de moom ma dafa ay yële yàlla ya nga xam ne ñoom ñi nga xam ne ñu ngi ñu ngi. yéen si yàlla ki nga xam ne mooy aji yërëm gi nga xam ne moo leen bind ci yéen yërëm ñoom ñu ko wér ñu ñëw ci yërëm tamit baale wala ne ko dëggal ñu ñëw même bu ñu ñëw rek dana ñëw yaakaar nañ ko pour ne xule kat ñu doon ci daanu nit ñu naa jëlee ci ñu naa jëlee ci yàkkam ci de doomu aadama yàlla bind na ko ci yàkkam ci de te dafa yàkkam ci ci boole lu jëfam doomu aadama lu mu ne rek yàkkam ci rek ko jëf dem bugal sax ñu yàkkam ci mu ñëw te wala kum xalaat wala ay tëkk sama de balaa ko saa ñëwoon nga ñàkkal ji ko daal ñu ma leen tëkkoo da ngeen ko gis gis tëkk te man de am ci jawan ma leen ko joxal alal bagar de te yàqu la danañ wax maanaam xamal waa doon ak ay mbir la ci seen jëm yàlla. su fekkee ni waa yonent bi wax nga dëgg seen jëm yàlla kañ la taw yaa am doon sa sama xam ànd si na ñaan dafa doon la dinañ la yàgg ko na. waxtu wala jëm ci anu jooy wala ay xarkanam seen naara safara wala am soo wala ñu jaay wala ay gannaaw seen wala am te ñoom ñu soo doon dégg leen mu gën ñu xamoon loola kon kon ñu yàqal ci mu gën rek des ba nga xam ne ñu faral ci safara safara fa di kon nag xarkanamam mun mun wala kanamam te doomu la gën a mu mën ko lakk ci gannaaw di ko lakk ci kanam wala bu nekk mën ko lakk te mën koo bañ daa mu teel koo ko bañal bu fekkee mu ngi bara gën a foofa keroog dina rëcc mën ko ñàkkal dem bu wàll. parce que saa si ñun dana dikkee leen seen jëm yàlla baax ko doon di jafe parce que Fatou tam gëlëm yoo leen de waaye parce que maa xam ne ñu rab daa gàllaroon de seen jëm yàlla ñu yàkkal bi parce que yàkkal bi dana ñëw waaye kenn amul sañ ñu ñëw yàlla def ko ni bu fekkee lay dikkee gerte boobu yëpp maa ngi ci moom ndax ba gis ñu kat xeetu saa yi nag ñoom ak sàngam ci waxat ñuy tukki waaw kon mën nañoo fàttali ba woowu jëlee ñu tuub waaye soo xamee ne ak mu nekk mën naa am ci laaj ñuy tukki kooku moo gën a baax fii waaw jaamu yàlla boragal yàlla muy pare saa yi nag rek wala am jëriñ moom ñu doon dégg ñu xelal de wala ko suuf yaa ngir jéegoon na ci lu tudd ci yéloon de. ñu xam ne ci yéloon de. yéegi bi ñu yéegi yéegi yéloon di ñaan sallallahu alayhi wa sallam ak ñu ko xam. dana ko naqari mu ne ko mu ne naqaree yonent yi jëkkoon yëpp dañu leen daal di jëlee ah ak a wàcc yéen ñëpp ñaañu parce que loolu rek am na ñu ne ñoom ak am na ñu ne ko yéen ko yéen ñu ngi ci moom. kon bëgg nañu ne dañu xalaat leen ñoom ñu daal di leen yonent ba ñu itam baamaa ñoom rek dama leen di arrangé kon waxal man yàq la ko man nag dana mu wax leen ñu ci dund wala ay bëccëg ñu naan amoon na ci ay yéen wax nga ko ci déglu ngeen ne la ba yàndoo kanam naa. ku leen di wax waxtoo ku tëral mu wàcc ci yéen bëccëg ngeen nelawee mu mbugal doon wàcc anam ngeen ca man wala ñu ñu la sax mënuñ jëgal sax amuñ nelawee parce que loolu ñu am moo di doon wéy rek ñu ñu ci jëgal wéy parce que alquran borom sande waaye yooyu yëpp dañoo ñu fàgg na seen borom am bay loolu ñaan na yàlla tam na moom day gën a ñu dara yàlla lu bon am na yàlla yoo xam ne bu bu bu bu ñëw yàlla yooyu koy tere ñu doon naa ko dund déedéet moom day dañ doon bu ñu bu ñu jaamu keneen itam ak di bëgg seen yàlla yëpp def tasa tasa ñëwul waaye bu tasa ñëwee ñu ne ci seen moom yàlla asamaan rek ci man dara dégg nga dem ci yàlla waaw jooyoo ko bu leen yàlla bu xëyee ñu dem ak di jaamu keneen waaye tasa yoo naa xam ne ñu ne ko daan ko ci ñu dimbale bokk seen wala am déet ñoom xamoo na léegi mu toll léegi naaj bi mu ngi ñoom xëy na mënuñoo dimbali seen bopp mënuñoo ñaan seen bopp mbugal saxaay leen def ban tey mataana yóbbal nañu awlaay yi ñëw aaba amaati bàyyi seen ak wax la ba yaakaar ni ñoo wala umur dund man yàlla maa leen dund jox leen xéewal ñu leen dund ci xéewal ñu def seen bàyyi te dund ba yàgg ngeen parxoru xor parce que yàlla ñu leen jox xéewal de taxawaay raw na sax bi suñu anaana xarum naa ci gënoon a jublu dara suuf si ànd nan ko doxaa ñu mun gënoon a wàññi ko dina traçé ak ñu kasam xanaa gis ñi nga xam ne tamit ñu la yàlla def ay ne jublu ci suuf di ko wàññi waaw ci kër yi mooy teer borom xam-xam yi su borom xam-xam yi teer suufal yi wàññi amoon ndax ñoom alxaari boo na way noonu lañu ndax ñoom ñooy noor am yonent bi mooy waxal innamaa unzirukum naka dama dama ragal loo leen di woy di woy li ma leen di ragal loo yëpp woy di bàyyi ko ci yàlla la bàyyi ko ci sama wàllu bopp de wala yëpp moo dégg ci bu mu woy sax yaa yaa maa ngi doon na ba def ma ragal loo leen de waaye ku sax li koy defar dafa sax moo tax ñu déglu ay waa de wala yu nafatum wala yu dem laal la leen nafatum ak hukum dina saa bi rabbi ci mbugalam borom sax ويقول ما صنعنا يا ويلنا اسمع هذا نعم قانون كنا نقول ظالم من ويقول بس يا لا انه كنا نقول لك وها يعني جاء وها ما على كل وانا قاوم لو درجت كنا ما كنا من دخل في اخر نعم وهذا نعم يتكلم فحاول يتكلم يلا كنا في اللي بيجي كيف قد وكان يقول لي يا جماعه انا waaw ñu woyofal la dem soxla li am sa am ci seen ngaale rafu ko mu defut wàññi ndax ñu xam sa yàlla ndax ñu koy kenn ba wàññi ay juróom wala ñu wax dara ci ñaari yoon de wala itam dem nak na jëf li xaaloo xabati wala itam dem nak na xaaloo xabati man la xam fan lañ ci jëf ñun xam nga ñu ci bàkkat ak ay naanu di jëf yaa ci andi man la xam seen moom loolu boo loolu def ci bu toll bu fekkee ñu ñu ci ñu ñu ko bàkkat yàlla dana ko indee dana dana ko feesal de limal la ko wax nga faa ah, dana dinaa ci maas dina ci way takkale te man yàlla doy naa ci aji takkale takk naa lépp wala xalaat xëy naa ñun dañuy jox na noonu Moussa Moussa waaw naa xaaral naa ko xaw a de waaw saaru Makka yaa amoon jëm loo ñu yàlla am na amal leen wéetal yàlla jëm loo ñu yonent yi amal leen ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu lay dikkee indi tegtal yi yéefar dëkkoo ne mu gën a ma laakara nekk ni ci say ña nga xam ne ñoo jëkkoon ne loolu lu mu cee jublu di nag leer ci say yonent yi dëkk ya ngay dégg ne ñoom dañ leen a lu ci yoon dañ leen a lu ci yoon dañ leen a xalak de loolu gaaroon na ci ñun tey ñu ñaan itam dañu ñaan itam ñu ñëwee ci lan yéen a tey ñu xaaral ñu nañu xaaral ñu ñaan ñu laawee lu mu jot rek yéen ci yàlla Musa ak Haaruna mbokkam yàlla yónni woon na leen te Firawna wàcce ci ñoom tawreet jëlee ko Furqaan ndax moo mooy fasale diggante bu dem naar fasale diggante xalaat ak xaraam na naka alxuraan wa biyaan te dig leer wa sikran te dig waat mu tax dina ñu ragal ñu yàlla de àll ci ñu ñaan yàq na dara ñu ragal rabbu borom seen woon te ñoom nit ko way jàq la ñu mën a faat nit ci des dañ ci rek ñu nga xam ne ragal nañ yàlla te xam ne daañu fàttali ba àllaaxira nit nañu ci des dañ ci ñooñu ñoo koy jëriñoo de waa ba jëlee alquran itam dikrun alquran la mubarakun li di barkeel am sama wasal nan ko afaanakum afaanakum ndax ngeen mun ci wana wéyal ngeen la ci moom maa wàcce woon tawreet ci Musaa ñu ragaloon yàlla jëm alaaxira jëriñoo nañ ko maa wàcce tey alquran bi barke jëriñ ci yonente yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax ngeen koy weddi wala xadaa tey naa nun day jox nañu Ibrahima Ibrahima rusdoo yi boom min qablu jëjët jëjët yonente yàlla Ibrahima moo gën a rafet yàlla yónni woon na yonent yàlla Ibrahima te Ibrahima mooy ki nga xam ne yàlla daf ko jubal lu jëkk mu gën ba mu juddoo la daan di jub bokk naa ko ma amee yéen di way aali yéen di way xam bi ci moom te man yàlla xamoon naa ne Ibrahima yelloo na la ma ko may ba ma ko koy maye. ba mu waxee yaa bi ñaan baayam waxaw ñu yàlla ana luy ñu def xërëm def ci aaya. am kum ngeen a ku woon a way sax ngeen laa ji jaamoom yonent yàlla Ibrahima mooy xale bu tuuti baayam daf daa defar ay këram di ko jaay Ibrahima comme xam ne nag bu baayam defaree këram yi jox ko rek bu jaayee woon ca marché Ibrahima génne ne ana kuy jënd lu koy lor du ko jëriñ kuy jënd lu koy lor du ko jëriñ ba ngoon jot dara bi nga jaar mu ñëw ma mu ne ko yow ja lu tax jaar loolu la mu ne ko lu tax ngay jaamu loo xam ne du jëriñ te du lor de wax ma seen këram yi de lu tax ngeen di leen jaamu këram yi mënuñoo jëriñ mënuñoo lor te booba xale bu tuuti la xaaloo ñu wax tontu baay waa ngoor ba jot naa fekk mu waa ba ana ay xarit yi am ñu doy jaamu laa ci moom dañoo fekkoon suñu bàyyi di leen jaamu moo tax ñu di leen jaamu suñu bàyyi boobu yàlla jub waaye dama defe lool doom di jëli ko suñu bàyyi dañu doon jaamu këram ñu ñu roy suñu bàyyi rek moo tax ñu di ko jaamu loolu lañ sant Ibrahima wala mu wax laqad kuntum naka ngeen antum yéen wa abaakum ak bàyyi seen balaa yu ci réer mu jiwu bu dee aji tuut moom xale ba mu ne yéen yéen seen bàyyi yëpp ci réer ngeen ne muy mbam mu tey bañ a dëkk ba ñu naan waaw xale bu tuuti ñu ngi yàq jëlee xeet yi yaa ngi doon ci suñ jëlee suñ jëlee gars yi ñun ñëpp ci réer lañu ñaar yàlla jubal daal di topp ci moom waaw gëm na muy wax ñu wax buur bi ne ko xale bi ne ko ñu gën a topp ci dinañ ko mu ne dana ko fóoyal dana ko fóoyal di ko tëkk di ko taxaw di taxawal yeneen yàlla yi waaw di seen kanam rek mu ne leen da ngeen di jaamu di jëriñ di lor di jëriñ di gis da ngeen jaamu si nga xam ne di ko taxaw di taxawal yeneen yàlla yi waaw di seen kanam rek mu ne leen leen di jaamu di jëriñ di yor di dégg di gis da nga xam ne moo leen bind te moo leen di jëriñ moo leen di lor su ko defee parce que suñu nekk dana am suñu yéen wala waaw maa ngi bàyyi leen laa leen tuddee wu ñu ngi di xaale ñu ne di gën a gën a ci dëgg am am am yoon na laa ñu naan ñu nekk ci wàllu koom bi mu naa Ibrahima di yàlla moom dëgg la ci yow am na ay taw Adama mu borom teewal parce que semence bi mooy wàllu semence bi juróomi yaar boo ko defee juróomi yaar ak la siy tax a wax dara mu nekk juróomi léeg-léeg bu leen déggee ñu ngi yàlla duñ dara yàlla mooy ci biir asamaan suñu ngeen di gis ak suuf suñu ngeen di gis waaw naa maam dina saa yi ñu ak dina ko am yow dina ñaar ak ak suñ ci leen di déggee te man wóor na ma ne yàlla bind asamaan ak suuf moo leen bind yéen ñëpp moo wax yow ngeen jaamu ko waaye seen seen kër yi ngeen di dara waroon ngeen jaamu wax dëgg yàlla. ak dana dana mën ñu koy toog dañu gënoon ñoom ci àdduna ñu war a ngelaw ko waroon yàlla ya ñu ngi lay dem koy ja seetu seetu kaay ba nag suñu jëli fee fekk yàlla yi defal leen barke ci ñam yi ñu lekk ko soog a tasaaroo loolu loolu seen aada tey ñu Ibrahima nañ dem Ibrahima ne man damaa xaw ñu mu maa dem ñu dem ñu fokk ci ñoom ñëw ci yàlla ya yàlla yaa ngi. ñun ñaamuñu mu ne leen bu ngeen lekk ñaamu ay garab rek yàlla yëpp ñu ko mu xob te ñu ñam gore yàlla yëpp te garab gu mag la def te mu nekk ci seen jiw yéen seen yéen a tëdd waaw loolu wax danaa bu ñu jëli dee ci suñu gore yàlla yëpp ñu man faa la ana ko def na mu asal weddi ale ak naa ji yàlla sumu ina wana ka moom la mu ne baali ñu aji nak la mu joxe tooñale ñu ne ma jaaku ko fi yàlla yi ko fi yàlla yi tooñale waaw loolu wax ñenn ña wax ñenn ñeneen nee naa déggoon nañu parce que waxam baa nga gën a mu ay yibandeem yu xaalu de na wax loolu ñoom kay waaw ñu ngi wax ku ne man de déggoon naa Ibrahima di tëpp ne xokk yàlla yooyu dana leen gor waaw loolu ñu wax ne faatoo di keleen bii ci Ibrahima laa ñu naa fi ci bët nii ñoom Rosa ñu jàppalante indi ñu ñu jàpp yonent yàlla Ibrahima ñu taxawal leen aaloom ndax la ñoom ya sa gën a ñu seere ñu moo ko def de xaaloo ñu wax ne ko ah am ta yow xaal sa def nga asan yeddi alihatna ci yàlla suñu yaay Ibrahima ngay Ibrahima Ibrahima yaa bokk yàlla yi xaala mu wax ne addéy sanlaa def na ko kaddimam aji maa nga seen rajile parce que loolu laaj leen leen suñ karoon leen ak ni ngeen man di waxle mooy yàlla ji mag jee ko gor yàlla ji mag ji moo gor yàlla yi ndaw yi ndax di ngeen koy jaamu tolale koog yàlla yi yi nga xam ne moom du seen morom looloo ko naqari moo tax mu gor leen laaj leen nag yàlla yi su fekkee yàlla yi tontu nañ leen rek ngeen xam ne ñoo gor ya ñoom xam na yàlla jumaan yee ko gor xam nga yàlla yi duñ tontu dawul yàlla du nar waaye boobu kenn ci naram yi muy wax ne naroon na yàlla ci nar ci dundam ca la bokk ba ba pëytam yàlla am dañ ko ñaane ne ko ñoo ramm mbindee fi daf ne man munu maa ramm ndax naroon naa yàlla ci nar xam nga yàlla dina ma ci dugalam de ba mu bëggee gor yàlla yeen dañoo xëy ne ko nañ dem mu ne leen man damaa xob te booba xobtu damaa xobtu jooja sama xol dafa xobtu ci li ngeen nekkee neexu mooy loolu la jubloo wala xam si naa xox fii biir na nga xox xam nga loolu dara la ci yàlla yi itam garab yu ndaw yëpp mu góor leen ak yàlla ji màgg ne yàlla ji yàlla yu ndaw leen moom te du seen morom looloo kon xale mu góor leen fekk na moom jublu sax garab bu màgg yàlla yàlla dëgg-dëgg nga la jublu te yàlla yi nga xam ne moo góor moo góor yàlla yu ndaw yo ñetteel ba mooy ba màndeeg jabaram jëm misra te romb duwaañ ba te duwaañ ba jigéen bi rafet soo xamee ne laaj na la yow góor bi ko am na sama jabar la rek dana ko nangu pour mu ne jabar bi rafet góor waru ko am moom rek war a am jabar bi rafet soo ne sama jabar la nag ne sama jigéen la mu bàyyi ko waaye soo ne sama jabar la rek mu ne mu ne ko mu nangu ko yéen a si yàlla yu raadu ba mu ñëwee ñu gis jabaram laaj boobu mooy sama jigéen la te fekk na saarata doomu bay saxam la bay Ibrahima bay saarata ñoo bokk ndeg bay bon jigéenam la xam nga te itam boobu moom rek mooy jullit ci suuf ci góor saarata rek mooy jullit ci jigéen mbokkam la ci diine itam waaye loolu de mu ne woon ci sama jigéen la ak li mu wax ne yàlla ju mag jegoor yàlla yu ndaw yi ak lam ne dafa wax yàtt yooyu lay wax seen jëm yàlla ne man naroon naa yàtt naaw dara du ci naaw fara janoo tan dellu ilaa anfusihim jëm ci bopp seen ñu delluwaat ci seen kam na beneen Ibrahima ne laaj leen yàlla yéen ñu wax fa xaaloo tan wax innakum naka yéen antum yéen salimuun dëgg-dëgg ñun ñoo toll suñu bopp dañu bay jaamu loo xam ne mën da wax ndaxte yàlla ji mënoon na wax tey mu wax ñu ko ko far bu lukki soor topp delloo fee naa aroona seen ci kéefër seen demoon nañ ba seen ak li bëgg a jib ñu dellu mu waat ci seen kéefër ñu wax ne laqa alim tawalaaye xam nga yow Ibrahim maa awlaay yéen ñi de yàlla yan ci kaw nañu Ibrahim bu wax laajal yàlla yi gën a xam ne ñun ci yàlla yi mënuñu wax xaala mu ne leen loolu la jëm nit ñi abataan bi loolu la ñuy jaamu ñun ñoo jaay yu yàlla maa ngi wax bu ñu ci mu leen seen dara wala yaa bëgg ku ci mu leen ngeen ko jaamu yéen jaamu loo xam ne mën na jëriñ mën na lor wacc yàlla mi nga xam ne moo leen bind te di jëriñ dina xasew lakk mi ñaan leen moom ah wala maa saabu gannaaw la di jaamu de yéen a bon te yéen a bon la di jaamu de alhamdulilah yow yàlla afala taquluna lu tere ngeen xelu Ibrahima wax leen loolu nag daal di dem yoonam mu nga wër nag mbooloo maa ngi ko topp ñu ñëw ci ne ko yaa ngi nii waaye Ibrahima dana yàqaat dina ci de dana soppi diine suuf ci de ñu ko topp ah loolu ñu wax ne xar ko rakk leen ko kon suuf si mbir leen xar yàq si ñun ñooñu ñuy def Ibrahima ñii dañu war a taal soxor rek ñu napp ko ja rek ba mu nekk tey lu ko may rek dana yàq suñu diine dana dana lu ko may rek dana lu ko may rek dana fokk ñu ngi si rek dañ ko gën dem na ci yan paa yi ñu ngi lay def daa ko dem nag Lumroos te boobu mooy buur ba dina yëpp amul digaloo amul suñu digaloo mais képp ci ci julli jaar yéen fii tas naa ko na ma taxawal weer. ñu taxam ñu daal di ñaar benn ñaar boo xam ne kenn xamul ñoom day ji ko fexe rek nag ku mën da wax ko sax xëy na koo taxawee ñu taxam ñu taxam ñu taxam ba weer dee ñu ko ñu taxam mën ko taal ko ba nga xam ne ndax man yëpp takk na waaye lu jëndee ñu daal di woo yéen ñu ko jege ñu def mboq mi ci yéegi mboq yi ñu ko fan ñëw it mu ñëw sëgale keroog ñu daal di ko defaral machine bi mboq nag waaw daal di ko bëgg a fab dugal ko gën a dimbal mboq ko mu daal di def safara sa malaaka yi tey ko dañuy yëkkati yëkkati nu muy ko yëkkati te gis ñëw de ren malaaka yi ba tey malaaka yi gis jigéen wala jigéen ñi fay sa ñoo taxaw rek dañuy ci yoon te yàlla Ibrahima ba mu ba mu defee amuñu kon saytaan kon kon iblis malaaka yi daañu ci jëlee ñu daal di ko suuf ni moom yonent yàlla Ibrahima daal di woo ñu jëriñ ñoom malaayika daal di fàddu ñu daal di ko far nag tamit di ko far rek noonu lañ ko sànnee di safara dañ ko sànnee malaaka yi kaw yëpp ak yooyu suuf jàngoo jëm ci yàlla ni yow yàlla sa jaam bi nga xam ne moom rek nga am ci kaw suuf waaw ñu koy def mu ñu lay nuyu yàlla na leen dem leen ko ci bëgg ku ci bëgg nga dimbale ko rek dama dimbale ñu daal di ñëw dama lu ko nekk Ibrahima amuloo soxla mu nekk soxla si jëm ci yow jibril day amu ko sa borom nag laa bëgg a jëm ci mu ne ko laaj tey musal la mu ne ko du xam ne li ma nekk xam nga xam li ma nekk rek na moom ma ko laaj dara malaaka ñëw ne ko maa ngi gis ngelaw yi su ma suuf saxara si mu tasaaroo rek nga xam sax bu ëpp yi mu ne ko soxla wu ma di bëri indi leer malaaka ne ko maa ngi gis géej gi ma kawal géej gi léegi mu fay saxara si Ibrahima ne ko soxla wu ma di bëri indi leer de ñu sànni mu dal ca saxara la suñ bëgg mu naan wax nun yàlla yaa naaru yow safara si kóor yi nekkal pardon bi aji sedd wa salaaman yàlla ne safara si sedd laa si saan si Ibrahima bu waxoon ne na safara si sedd rek xam te kon sedd ba na lool Ibrahima mu na nga sedd daf na sedd bi di Ibrahima la ko lu muy ci biir ba ginnaaw lañ ko xeexoo parce que ñaari loxoom njëriñ la rek moo la safara ba amatu benn tàngaay yàlla def ko te sax te tàngaay amu ca te saa ko jibil wàcc indi ko mu jibil rek yàlla dana safar ko jibil wàcc daal di tëddaay ay seetlu daal di daw ci ron Ibrahima ndox mu gën a ne matt mi xamoon ba muy tàkk yàlla ne matt mi ñoo ñal fekk nañ nag mosu ma waroon a fàtte nag sëriñ Ba indi fekk nañ ñu gën ma sëriñ ñu laa wax dina ñor ñu di lekk di naan ci ndox mi yàlla xebal ak malaayika ñu fekkal bu nit ñi ñëw toog ñu tuwét bi Ibrahima ma ne sama jiiri jindi fa ñu mën a ci jindi sama rafet moo ci gën a ñàkk ci man de sama xalaat ci xebal mu sama baram ci loxo yi ala ñu ngóor nag ba ci Ibrahima ay fan ci safara lool dama koy fan nag mu yëg ci kaw daa xam mu ne dafa lool soxla si digg mu yëg gën a jëm ci yërëm yàlla Ibrahima suuf Ibrahima mi toog yi safara bi te ay nit ñi toog wër ko mu ne ma jaa ci toog bi Ibrahima mu ne ko en fait mu ne Ibrahima napp la mu ne ko dara wala ci man lu may um bi ma lay wax mu ne yaa ngi toog mu bëri dañ laa ko ci biir tan bi safara bi ne sama borom moom mu toll mu ngi yàlla jàmm mu ne looy def mu ne ko mokk mi ngeen xamoon yëpp tamit moomu xeetu maa ngi ci laay dundee looy naan mu ne ko Sall yaa ngi toog ci sama kanam mu ne ko fa yàlla jaamu morom de danaa ko reyal ñeenti junne nag màggale ko ko fa yàlla ji daal góor la yéen Sall Ibrahima ne ko yàlla ma soxla ci sa jaamu rek mu ne naa Ibrahima man daal jënd mu ne ko ma gën a nga jënd daal di daaw rek jënd ak mu góor dara jënd ko loolu mooy njiram lu mu ko Ibrahima naa ko def ñu ne. Ibrahima dafa jëfandikoo safara bi moo tax safara bi lekk safara si ñun da la si kenn ñu seet ñu ne nañ seet kenn si ñu sànni ko ñu safara si seet ak benn waaye sànni ko jëfa wala fa saa saa ay ñu nekk sëriñ boo ko defee mu doon sànni ñu Ibrahima ñu yàlla am jaamu morom de danaa ko jaamu ñaare ñun ci biir ñu naan de jaamu ko wa araadoo nam nañ ñu ci Ibrahima kaay dem taxe ak ko nañ dem taxe dëgg ko xam ci Ibrahima jaa naa am ko def waaye sarta nañ lañ na moom lañ bëggoon a am ci rek wana jeenaaw ko nu musal ko wala ko nag lool ñu musal ko moom lool taal jëm lool doon mbokkam xaaraan la xaaraan doon bàyyi ko ay wala moom ci jëm ci am lool xam nga wan jeenaaw lay fa am la moo ko dëkk gëm taw ci moom yàlla musal na ko musal na yem ci yàlla lool itam yàlla di jëm ci suuf la ci jaay ba naa ba keneen jaay moom la ñu ñu ñu gàddaay nag moom Ibrahima mu ngi daal di sawar a yàlla saa Ibrahima wàcc ci Palestine loolu daal di mot a dëkk dëkk la soo xam ne bépp moo tax a ñu dégg. waaw xam naa kon maa ngi loolu ñaar ko moom Ibrahima Isaaxa Isaaxa wa Yaquba Yaquba yàlla may ko doom nag mooy Isaaxa Isaaxa nag mooy yàlla may ko doom mooy Yaquba naa fi la tamit mu ngi doon moo tax Yaquba ak ndox ci Isaaxa. Isaaqa doomam Yaaqooba doomi doomam la wa kullan képp ci doom bi ak sët bi yaa naa def nañu ko def nañ leen faale yi ñu wa ñu ñëpp ñoom ñëpp ku ci nekk yonent Yàlla la wa jaa naa am dañ def leen ay yonent yu ñu yàlla na leen di leen di amal naa ci di di di la dugg rek ñoom ñëpp yàlla def leen ñu yonent yoo am na ñu jubbe waaye naa seen mooy leen ñu ci ñoom ñu ci ñu wa yëpp amal saa daal taxawal ci ñoom ñu daal ba daal daal ñoo ñoom ñëpp yàlla loolu leen ñu julli tey génne asaka okaano tag na kaa bi ñaan way jaamu na ci mun lay wala tan lool aada na la man ko hok man fasala diggante way xolowe yonent yàlla lool yàlla joxoon na xam-xam waate diggante ñaara ko ñaar ñu xolowe waaye man a xam-xam yàlla joxoon na ko xam-xam de wala ñaaw tan musal ko meen xare ci dëkk ba da taamal di jëf al xabaar yu bon yooyu yàlla musal na ko ci moo tax itam dëkkam bu la am ne ñoo ñoo daal laal góor ci dugub ak di sànniyante waaw ay bal waaw ay di fooy ay gannaaw ñoom nag ñoom kenn nekk nañu xaw ma sëriñ bi ñu bon parce que ñu may gën a topp yàlla de waaw xam naa wax dama xaw sa ko fa rahmatinaa ci yërmande bi musal nañ ko te mbugal ma ci yërmande yàlla dina la naka moom lool dina faa dina nekk la mu ñëw ñu ñu ne de parce que jaay daal noonu ñu gën a jaay moom. Ismaïla ba mu wooyee Ismaïla ba mu ñaanee borom suñu dem ñu rek yàlla dem ñu yàlla nu mu ba mu ñaanee yàlla ba mu ñaanee yàlla ñu dem ñu rek mais wax dëgg yàlla bu baax a ñu ñaan seen ba yàlla mais yàlla yàlla bu bay kenn ci kaw suuf koo am na say wér yàlla ñun xam nga njëkk rek Nuuhu nag moo jëkkoon Ibrahima ñu ne la dox na seen diggante parce que jàmm naa dañoo ñu leewoon ci moom sama jënd naa la seen musal ko wala dama ñu ñëw kër gi sax dara la ñu mooy laajte rek. wala vraiment comme ni mu leen ko xam si ne si ñaari kër boo xam ne si daal la si ne ñoom nag ñoom daal nag daal na xaw ma solo ñu ñu bal waaw maam daal la ko leer ak maanaam ñu ñu boole ñu nekk fa ñu yonent yàlla Ibrahima ak Lóor ak Nuux de danaa Muusa yàlla wa wasku jàngatal daawa defalof daawa la de yonent yàlla daawa day dem te saamu lool mooy juróom benn ba pare maa Suleymaan yokku maanaam dëgg naa ñaata gëlaat ci léegi wala am nañ la ñaata ci am mbay rek gis na fa sab ba gis ci suñu jàmbay ma xanaa mu xaw mi gaa ci aw ji de wala xam nañ ne gaa ci dëkk ba dañu war a ci jël toolu jàmbur ya waaw farle ak mbay jaxaat kooku naa ko nekkoon na mu saa yi ñëwee wala jaay ñëw ak ñu jaxaat leen rek ñu ñëw na di laayal ci laa bële borom mbay mi taxaw ñu ñëw na di laayal ne ko borom gaa ci dañoo boyal seen jiit ñi ñu ngi ci sama borom de rek far nañ ko ba na borom mbay mi jël gàtt yi borom gàtt yi jël mbay yi mu ngi xale Souleymane leen lu soxla àtte ñu ne ko àtte naa ne borom mu ne man de si maa tëjoo xam naa àtte lu bëri mu loolu ñu wax ko ne ko suñu àtte la borom bay àtte mu ne damay wax ne borom tool nañ jël jur gi di jëriñoo soow mi ak njëkkile ak soof mi borom borom jur gi dama amee soo jëkk yàlla daa ba tool yi dellu ba mel nañ meloon waaw su ko defee jur gi delloo ko seen borom soo borom soo ji jël toolam la su dee man na leen ñëwee yaate ba daa war na yaate ba bokk di xale yaate loolu la yaate moom la yàlla yoo xam ne ba nga amee ba ñu yaate ca loolu ba fa am maanaam seen suuf bu doon àtte la daa ko def boobu mooy mooy yonent bi waaye àtte ba Souleymane la ko yàlla jëmbaloo dem moo àtte àtte boo xam ne moo jiite ndax Souleymane dafa jubale cosaan ak cosaan jubale bànqaas ak bànqaas ñu jëriñoo waa ak waa ak wabar ne suuf bi borom mbay mi borom jiw bi itam dem di roose à sooree ba ñu dellu lan lañ lan lañ mënoon ñu delloo jiw bi seen borom loolu la delloo am borom moom jubale na waa safaan ak safaan jubale ban affaire ban xaar waaye am na dafa jël safaan fay ko ban xaar te ba nga xam ne moom képp nañu sooree ba nga xam ne ruut lañu mën nañu jël jiw bi waaye dafa jël safaan fay ko ban xaar te ma tax a te Souleymane moo gën a boobu lan képp ci ñoom ñaar nañ alal jox nañ ko mën a atte ku ci nekk nag jox nañ ko ab yonent daa wala ab yonent vraiment yonent la waaye man xam-xam yi di diine ba xam na personnellement daa wala ndax daa wala jiwaale ba ñu ko déglu ba pare la ñaaree daa wala yàlla tàggat la la na ko buy sabbal dafa ñaax baal lool waaw buy buy sabbal mboolem bët bi mboolem jaraaw yi ak ñaar ñëpp dañuy ànd ak moom di sabbal dañuy baaxoon bu ñaaree bokku naa ne ko man faa yi ñu di wajal loolu de fàggal ko nga man yàlla maa ko def bu kenn daan dugg de waa lan naa ko xamal nan ko sama dala boo ñun xala xala la gaa moom arabu mubbi koŋ la de moom la yàlla jàngaloon xala xala la muy arabu mubbi koŋ yi ñu la doon rek lakum ñaa leen yoftinakum dina mu musal leen min baasikum gaay xala leen de faaraantum ndax yéen daa gën a way xam ne ngeen xëyoo sama man yàlla yéen yàlla daaw daa moo njëkk a yërëjëf wóor la xel bu guddee mu sol yére yi peut-être ne jiwër ci biir yi comme gisee nga loo xam gisee buur bi ndax bëgg xam luñ koy luñ koy jafe su ko defee rek ñu ne ko buur bi rek ñu am ci moom lu mooy lu baax te jëm gis na mu ci lu wër maanaam ñoom xam gisee buur bi lépp di wax lu baax moo tax Jibril Jibril mu ne ko loo xam ne gan boobu mu ne ko baax na lool su fekkoon ci ñaxam lay lekk waaye ci ñax jaamu rek lay dund naa ko def nag ci béy ci maar rek lay dund naa ko def mu doon ci suñu yëngam ñaan yàlla mais yàlla na ko yàlla may mbéy ci moo xam ne dana ca mën di dund ba bañ a dund ci béy ci maar rek yàlla daal di ko sawal sawal nguur gi ci këram ak lañ di ñëw ak xànjar lépp yàlla ci këram. yàlla xeebal malaaka mu xamal ko lu ah, ñu war ba mujj ko muy moñ ren jii bi dafa moñ ci loxoom na ñu moñ waaw na ñu ci mujj jigéen bi moñ noonu la moñ rek balaa ba mujj ko bi di ko jaay nag di ko dund moo tax mu mujj nag di dund ci ñoo xam ba ñu dund ci bay ci mata lañ ko doon def mujj ko yi nga xam ne moom la arrêté yi di musloo daal daa ko jëkk a rabb wala Souleymane ñu tàggat ñu naan Souleymane nga yàlla ngelaw ah ci ko tënk ñu yonent yàlla Suleymaan ba daa war a dee mu dogal ko moom yàlla fàggatal ko ngelaw la ruxaa buy sikkal ngelaw laa koy ngelaw laa koy ñamu moom ñamaan la udduhaa shahran wara'aa shahran naka nga xam ne noonu la ko yàlla waxee ñun tabaxal nañ ko kër goo xam ne yaa ay ba juróom-ñeenti farfax la bu daay ba juróom-ñeenti farfax la ñu defal ko ci ñetti téeméeri lii la xam ne ci la jabaram di nekk defal ko ñetti téeméeri daan ay ci yoo xam ne ulama yi ak yonent yi ci la ñuy toll su bëgg ñu ci rek ñëw dugg ci néegam ak jabaram xale bi ñoom toog rek ngelaw dana ñëw yëkk ci kër googu rek naaral moom bu koy dox doxam weer bu ko nantee soxam dafa bu yàlla mooy alal ñu teew léegi lépp lu yàlla mayoon ñu jëkk ña may ko xeetu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggatal noonu tàggatal nañu daaw danañ lu ñuul tàggatal Muusaa ndox tàggatal Suleymaan ngelaw lépp yàlla tàggatal na ko xeetu yonent xeetu yonent yonent lañu xeetu yi mu xooloo kooku kenn jënd jiw ba ñu laaj lañ bokk yi ñooñu ñoo ngi ñu gëm yàlla waaye mboolem xeetu yu ko xëy ak ñi nga xam ne daf leen a war a def te wala ñu ba jëf waaye ci xeetam nañu bokk yàlla tàggatal na leen lépp lu mu tàggataloon ñu leen di jëkkee seen gëm yàlla waral naa yokku na waaye waa am na gàllankoor dafa war a ñu ko yokku wu def ñu waroon a gëm gëm ñu gëm itam ba di def seen gëm gëm di gën a wala ak ñu seen ci kaafir ñu seen ci xar baax ñu tey ci yéegal yàlla ak dëgg yonent yëpp te yow rek yàlla ñu moom dafa dellu gannaaw te ci yéen a mu daw moom yàlla dafa yàlla ñu ci leeral lépp yi pour que am na baal naa ak am na ak moom mooy saam bokk naa sa sa sa ne ko nanu ala ñu ñu rek am na ko liggéey ci lépp dafa da lépp lu yàlla jox day naan fekk na yàlla xam na ko ba mu nekk saa ñu fàggat ci saa saa ñu mën yàqoo sa ñu danañu napp loolu ñu naan ba ñu tàggatal ba ay saytaan yoo xam ne ñoo koy nappal ay jeex yi waaw ay kii yu war di joxe lépp lu nekk ci géej gi di ko nappal waaye am na loolu dañuy jëf am na ci jëf loolu daal di def lu mu wala daal di def leneen napp daal mooy tabax ak lu moom ñu ne ko daal di leen bokk naa la nekk ko noonu alors dina dina wax loolu si ñoom rek dina la rek loolu si ñoom rek xam ne ñu ngi ko fay maam ñu yor ñu ñu nekk su lay maam dafa juróom ñaareel la mooy dafa si ayoo la moom daanaka ayoo ayoo ayoo bara bu dee doon soxla si ayoo bara maa ngi moom moo waxee laa boobu xamoon ne ayoo bara doomu doomu ñaatu ñaatu doomu yàlla ba bëri lu saara jaxasam rahmatu doomu yàlla ba bëri lu yusufu doomu yàlla ba doomu saara jàngatam soxla si yoon yàlla ayoo ba mu wure naa daa ba mu xoolee daa ba mu xoolee ba mu xoolee boroom fekk na nag man ba nag dem naa ko xoolee xaaral ma boroom yàlla moom ñëppati ko wala ñëpp taxu ko lu may jabaram ñetti at wala juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at loolu la lay ndax su ko def nag ci moom teelal juróom-ñetti yàlla malaayika yi yëpp jigéen ñi jigéen ak jafe-jafe te lépp lu xew soo tuddee yàlla wala nga jaamu yàlla ku jaamu yàlla dafa yàlla rek la koy jotee ci malaaka yëpp bu ko defee yàlla na Jibril waxal mboolem ñoom kaw yëpp ak ñoom suuf ko defee ñoom kaw ñoom suuf yëpp daal di julli ci ba Jibril ba ko yàlla rëbbee baax ko gën a tawaat gannaaw asamaan teew daan dem ba ci asamaan juróom-ñaaral lépp lu xel ci malaaka yi mu gis suñ ko wala di di di ayoo ñëpp gis nañ ko ñëpp nañ ko su ma la wala ñu tagg ayoo mu ne yow yàlla ayoo mi nga xam ne dafa ko ayoo di di jaar daf koy door ba naa fi su gërëmee nii boo ma xeeroon ci moom rek dana la wedd de yàlla ne ko ayoo bu bugg lu may yàlla mu ne ko xiir ma jaaral am ji rek ma yàq ko kon dara gis na xéwal bi ñu nekk rek moo tax muy xaw a topp waaye su ñàkkoon xéwal googu kon dama lay def yàlla ne ko xëy naa la jaaram yëpp mu daal di ñëw dajale saytaane yëpp ak mbëri jinne yi ne leen ku ne dama la ma am ci doole yàlla xëy na ma ci yàq alali ayoo ba. benn mbërëm saytaane jóg. ne ko man de am naa ci doole yoo xam ne man naa soppeeku ca lu weeral safara la ma am ci jëlem yëpp man lakk leen ci benn mu ne ko gaawal mu dal di di la nit lu weeral loo safara ñëw ci jëlem yi ayoo ba ya lakk ci jëlem ñoom amoon yëpp ak sàmmee te des wut benn jëlem yi ñuy dal di soppeeku nag kenn ca sàmmee daal di ñëw ci Ayoba daal di jooy jooyoo ne ko gis nga yàlla mi ngay jaamu bu dee ba ca faale wala sa jërëm yëpp yàlla weeral safara ñu naan lakk ko te yàlla mu xël la ji Ayoba na li ci sama yoon yàlla moom jëlee moom moo moo bu la koy jëlee moom man loolu li ci sama yoon man maa ngi def yàlla mu ñëw dëgëre aat doom yi ne leen ci na wax lu mu mën kenn ne ko man de mën naa rëdd seen nag ya ma am yëpp ma mu ne ko gaawal mu dem def mu ñëw ci ayoo ba defe ne dana soppeeku ayoo ba tontu ko lam ko mu jëkk ne ko moom alalam moom moom lu ko neex mu def maa ngi koy sant gàtt yéen noonu jaar dara. mu jëm ci ci yàlla moom ñu ngi mais yàlla soo naa ko mën a mu ne ko demal aywa xam am doom wutal leen sëriñ bi leen di jàngal te kër ñu nekk fa di jàng mu ne mu jëm ci ne doom yi lu ci gën a am doole ma wax benn waaye ko mën dem lu ji jëkk jàngu ko ci xale ko ca kaw xale ñoom yëpp seen seen bopp waaw seeni bitig tasaaroo seeni ñuul tasaaroo ñu denc benn taxawaay man mën naa loolu mu ne ko demal kooku daal di ñëw rek di di yëpp jàngu ba te su daanaka ci kaw xale xale yëpp dee àndoo ñii seeni ñooli boppam yi tasaaroo jëm nii seeni bitig tasaaroo jëm fii ak sëriñ ba mu ko ca nag ñëw ni mooy sëriñ bi ñëw na ba ñu sa borom bi ngay jaamu mu dee mu dee waaye mu def ko doom yëpp jàngu ko daamaa ñu jëm kaw ñu ne leen ñu ngi ko ñu doon soog a wér waaw na seen yore tasaaroo na na seen mbokk yi ak côté boobu. onk mu kontaan na ne ah léegi ma am ba dem leen loo ci borom ne yàlla moom moom moom lu ma jox lu ko neex mu def man maa ngi koy bu dee lu ci yàlla ne ko aywa bi ma laalee doom yi yëngatu na tuuti. soo ma xiiroon ci yaramu boppam bi de dinaa ko réeral yàlla ne ko demal xiir ci yaramu bopp lu dul lam li ñu ak kalma kooku sa yoon nekku mu daal di dana mbërëm dine mu ñëw wal wala ayoba comme ko wala rek jàngoro ci moom mu ñëwee ñëwee ñëwee ñëwee ñëwee yaram way yëpp sa jaloo def ay góob day day soxla ñàkk ji ji yaramam ñam xamoon ñëpp safaara wàcc ko kenn dëgg lu may jabaram jooju rahmatu amatul dara nag jabar jooju bu xëyee rek waaw jam fexe fexe wuute wuute ba am lu mu ko toggal rek ñëw toggal ko jox ko loolu ayoo ba nekk nañ ci fukki at ak juróom-ñett ñu ngi di wax naa ah. ayoo ba ko yàlla faale wu ko kii kay buroom xaritab yàlla dal du ko dal xar lam jëpp yàqu na doomam yëpp dee nañ yaramam mel ni kii kay du dara kii kay wu ko kii du du wali yàlla sa kari abinan jabar ji rek moo des ak moom yàlla xam ne li muy def na wër a wër a wër ko toggal wër na fu ne mën mu dox ci kawaram jaay ko ñëw toogal Ayuba jox ko bu ko taaj ilaa ñoom dana na ñoom nam doxe ba mu ndaw si lay na ñoom di doxe mu soog ko lekk tey mu ko ñoom di nam mu ne ko wax dëgg yàlla tey de fexe naa fexe wa mu ma am dara lu ma la toogal sama kawar laa jaay waaw moom la jënd ma la toogal la tey de te gis naa fa ak góor la laa ay gis naa ak góor na ne soo gisee Ayoba ko dal dal ko jaamu borom asamaan rek jaamu borom suuf su fekkoon ne tey nangu jaamu borom suuf nii natt bii mu nekk dana ci génn ndaw sa wax loolu Ayoba Ayoba gëñ ko kooku yow yi gis nga taseet ne ko naa ci yàlla danaa la caw lekk ñam ko naa ko def ndaw sa delloo xaar nag di sabablu bu mu toggal ayóoba de ayóoba nag dégg na noonam yaa ngi koy ndox ñu koy dugg ñu koy dugg ci yàlla dara ci te yàlla fayobu ñu koy dugg wàññi yàlla xamul lu mu jëkkëri jàmm waaye jàmm mi xamul lu mu ko jëriñ ñoo amoon yëpp ñàkk na ko ay doomam dee na alalam sànq na yàlla nga koy seetaan ci liñ ci teewuloon waaye yàlla nii du ko dara ayóoba nag soog a tawat ñaar am ñu naka man parce que yéen jot na pour mu tartar de mu soxla xaw ci boromam nag ne yàlla tartar jot na wala te yow xaaral mu raadu ñu yaay ñu yaram ñu yaram ñu rek. dégg nga ni maanaam fekk nañu ci ñaan yi yow sama borom man de tartar laal na ma te yow yaa gën a yaram mboolem ñu yaram parce que jot naa ko nangu loolu ñoom ko ñaanam parce que sama seen wuñ ñu maam ñu nga nekkoon ci moom ñu bëriñ ci lor waaye tey naa ko doon jox ko aale loolu ñu ñam wa mislahu ma jëm seen maam maanaam ñoom de. yàlla daal di nangu ñaanam nag daal di yebal jinne ñu ñëw ñu ne ko daal di gisaa ko daal sa tànk ñu ko daal tànkam ndox daal di bëll moo xam ne dafa tànn jër mu ne ko sangu ji mu sangu yàlla mu dellu si nam meloon amatu benn góom waaw yàlla moom dellu ca taaram bu njëkk ba ayoo ko rafet la woon kawaram dellu na nam meloon ci taar di neex neex mu mu ne ko daal mu ko daal dellu sew de génn mu sell mu ne ko naanam mu naan lépp lu doon feewal ci ci yaramam daal di dañ yàlla daal di delloo ci doomam ya deewoon yëpp yëpp dekki ku nekk dekki xam ak rakk joo xam ne am am la woon ak moom doom yi daal di ko wër jëlimam yaay magam yaay kattam yaay yëpp dekke loolu ñëw wër ko ayoo ba amoon na ab angaar boo xam ne jëlay weer sa normal nee na yàlla hebal ne ko ne ko taw ay liñ door ba angaar ba xiin wa ñëw taw ay liñ door ba angaar ba ne ko di jëkkaw gépp wuru wuru day angaar yàlla hebal xaalis mu taw xaalis ba feer mu bind ay indireer na yoo xam ne léeg-léeg naaf mi dal ci kanam Ayoba Ayoba yi napp yi mu bëgg ci waaw yàlla ne ko Ayoba li ma la tawal ci yurus yëpp ngay napp ay yurus yi dugal ci sa boor mu ne ko sa xéewal kenn du ko doon yow borom loolu ja soo ko jëlee ni jabal ñu joor lu mu ko leer lu mu ko leer ñëw di kun kun kun di seet ko Ayoba nag gis na ko ñu ngi toog waaye du defe na du moom ndax mu ngi bàyyi koo xam ne mu ngi bàyyi woon koo xam ne yaram wa yëpp ay góob la waaw ñëpp di ko bantu mu ñëw ba ayoo ba andi këram laay toog wër di wër di wër ba mu yàgg ayoo ko looy seet mu ne ko dama bàyyi woon fii ku feebar waaw wutuñ ko lu lu ma lekk lu mu lekk ma dellu si yokku ma ko waaw ayoo ba wax ak moom na ko mën waaw yàlla dikk na de waaw lii yëpp lépp lu ñàkkoon am leneen lu lay moom ànd naa moom ñëw suñu doom yaa ngi béy nañ ko ku nekk ñëw na ànd àll ba ci ñu boole ko ñu ngi suñu weeru kaay waaye sax dama ji def naa gudd suñu weeru kaay jaay bi def naa xaral moom la yàlla wax ne moomu ñu ko lor ja nekkoon ci moom may ko njabootam gam ñàkkoon ak seen seen waaw ma tam nit mu de maa ngi ñaan dana ko fekk ci faarum faarum ci alaw ne naa ma baax ma alaw bu njàmbar te sañ doom ñaareel ba kurtu leen maaya yi maaya rame ji ray ji doon sa ci miliyaar borom yàlla kudu ci ci na taal yaa ni ne doon yi mu waa xam naa am xarfe na ngeen jëf ne rama ci naa jee maa ne su ne um na sa ñoom ne taal yaa ni ne leen joon yi ne rek te bu yàlla du weesu boobu de ku jàngatal fan mu ni borom gën a wér te tey juróom nga teel jàngatal solo si yoon sa ibnu Matta in saa woo mu demee mu xaw a dem mu aji nar leen te ñu gëm ñu ba nga xam ne dafa waa ñu gëm ñu bañ a gëm mu dal di nar dal di génn gàddaay ci te ñëpp ñu ndigal yàlla kon na kam jàpp am na kam ndigal loolu nag dina dogal ci moom alayhi waral ko dana dogal waral ko te booba foogutoon ne la koy li ko fekk ci gàddaayam nga foogutoon ne dana ko jëfee kon naa daa tam xooloo boromam ci zulmaat bi gën a ndëgëy ci yëngam ak lëndëm yi guddi ga ak lëndëm yi biirab jën wa am na tam itam bi yaa yaa dégg bu booy jàmm ci dëkk yi daa antam dara yow subhanaka nu ma seen sa ñu ne kaman kunna konan na sa ñu ko ñu yonent yàlla yow yàlla nga koy ñëwoon te maa fal ci arafa ba ne ñu bañ mooy leen da ngeen alaku dal di génn gàddaay suñu jur gi dara yàlla loolu du ko nangul ngeen yàlla dem dugg ci genn gaal gaal ak gaal gaal ga dem ba ne duñ gaal bu ma saama xadi rek duñ ko seetlu rek fekk dañu wantale ku ci jaam daw fu ko bant bi dawee rek waaw ñu wàcce ko ñu jël ko mooy ñu ñu wantale bant ba dal yoonu naa yonent bi yàlla yéere koo koy moom wantale xaar mu dal ñu wantale mu dal yoonu mu la moom waaw ñoom ragal nañ koo soob jël ga moom mu soob boppam ci géej ga ba mu sooboo ci géej ga aw jën dal di ko ñu ne ba mu toogee nag ba ca digg guddi la mu ñun ñëpp di sabbal seen borom malaaka yëpp di sabbal seen borom moom mu dañuy sabbal ne laa ilaaha illa anta subhaanaka inni kuntu minaz zaalimiin parce que jot naa te nangu loo ñaan ko ñaanam wana janaaw te mu sëlu ko ngeen xam ne ci jàkkare la seen wala andi ko gëkk sànni ko mu génn jàkkare ga la xam ne ñoo jëfaaloo wa fafaani insa allah wa yoon boobu ñu musoon ñu mu ñaanoon képp ku jàqare képp ku jàqare di tël boo ko waxee rek yàlla na nga déggee na ne taali na yéem nañ koo xam ne moo am na jàqare ci àddina laa ilaaha illa anta subhaanaka innii kuntu na ñu ngi koy ragal loo ay noonam tam tam xam hasbunallahu wa ni'mal wakiil yéen nañ ñu gëm koo xam ne dañ koo dëkku ci mbugal tam xam woo ko lu am léegi laa yéen laa bëccëg mbir baay yooyu yàq waaw ku ne xam rek am nga soo koy àddina rek laa ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zaalimiin yàq gum la fekk boo ko waxee jënd buñ la ne tey noonam ngay fexeel nga ne hasbunallahu wa ni'mal wakiil dara lu ñaaw du bàyyi ko ci ñoom mukk dañ ci yow ñu la tëkkoon ak ne daañu la bugal nga ne moom foofu ba xam ne daal laa ba seen biir baax na jërëm si yàlla moo lool ñaanam ngaa lool bu ko jox ci la dee ñeent fukki yoon boo dee da ngaa fay de wa Zakariya jàngatal solo Zakariya te juróom ñu am seen baax lool Zakariya moo yoroon su saaru Mariam gis naa de ba ma wér ak borom boromam de ma ngay ñaan doom na rabbi ya bala sama yàlla bul bañ ma xaw ba ne aji ne ci ñu doon ànd koy waxal waa Sénégal aji jël way doon ya de sakari ya dum na tuule yàlla ñaar fukk ba nga xam ne amatul kattan mbooloo waa ko na daam doom jabaram am juróom ñeent fukk yàlla juróom ñett waa la xam ne moom it matal na mu nekk jël doom mu ñaan yàlla doom te jël naa tam nangu loo ñëw ko ñaan waa naa ko may loo ñëw ko yaay te yow ba mu ñu xamee yàlla may na ko ba mu ñu tuddee ay arab waaw baax naa benn yéen a ngi ñaan ko sama jabar jabaram yàlla defaraat na jabar jabaram baaxaat na kat jabar de yàlla ko mu mel ni jànk waaw yàlla ko taaram waaw ak waaw léppam daaw da ci Zakariya ci boppam itam yàlla delloo ko kattanam de ñu daal di fay jur doom joo xam ne moo di ayoo ba de ñu ne moom naka ñoom. daanoo nekkoon nañu Saalama di daaw ba xalaat bu ñëw yonent ñëpp ku ci ne ba nga ñaanal yàlla dafa la dal nangu lu tax seen seen ñaan yi gaaw a nangu moom waaye dañ daa gaaw ñu def def lu baax rek waaye lu ma ma wax ak beneen wala awra ci ragal de te buñ buñ bëgg a def yàlla lañ ko ñaan buñ ragal a def yàlla lañ ñaan de kooku daanoo nekk nañu xaas ñu ne ñu toog naa ñaanu de wala ci te say bukkee daanoo ak jigéen nga xam ne asana wax noonu farja afeem mooy mooy mariam de kon nag wax naa ko lool ci ak moom nag wooy naa ci lool waaye jaa naa ko def ko naa la ko moom ay fa ñu taa dañu daal na ñee jigéen ak mariam nga xam ne sëy doon te yàlla da dawal ci moom waaw waaw doom yoo xam ne mooy di ko liggéey tey ñun ci ginne yàlla te gudde na gudde na téeméeri ñun ci ginne kilomètre la gudde dañ koy seet benn foo di ne ma waa ko yaa ngi leen maa ngi leen fu mu ma ne ko yaa ko si gisee ma waxuma dara ma am jàll waxta dafa jëriñ alwaa bi delloo alaa ku bëri aji bëgg te li saa am léeg-léeg moom saa si rek ma aji la ab saa la dina ba ci ñaanee ko problème ñu janganaa yaa waylanaa eskene eskene ala basnu qad kunnaa nekkoon fi naa fa jile bal de kunnaa nekkoon zaalimiina di way tooñ de innakum naka wa ma ta'buduna li ngeen jaamu min doon laay mu yàlla afakum jaanama jaanama ngeen de antum yéen waa di doon way xalaf ngeen laa di jaanama law kaan a seen yàlla law maa war a doon xalaf suñu soxla de wa xaaj yéen e a may delluñ yow ñaan na leen caa ci safara te siiru na ak siiru boobu ñoom laaj moo nekk di suñu caa ci moom rek ñu na leen dina nekk solo xam a mu narus naa waaw laay jox ca may Abdoulaye ñu ci baaxaa pour ne ko la nga dem nga dem ñoom Muhammad mu ne mu na yéen soo daal yoo xam yaa wax ne waaw ñoom ñu jaamu ñu ñëpp safara lañ jëm yéen ne ko waaw mu ne ko xam nga ne waaw yow ñu jaamu nañoo sa yow xam nga ne tubaab bi jaamu nañu neefare xam na ne yàlla mu jaamu nañu malaaka yi su fekkee ñoom ñëpp safara lañ jëm nag comme ni ci ci xol na ci dem safara rek wóor na ñu ne la seen rek ñaanal sabaqat bi suñu loolu ñu ne leen ñu naan ci ñaar naa jëm yàlla walaay maa doon ah, naa ñu sol la ñu xamaa ci safara maa lu xëy wu dañ koy moosoo de dem këriñ dañ jubluwaay ci biir malaaka yi ñu ne saa ñoo koy de saa yàgg moo dégg ci ñoom ak saa ñu dem ñu dégg sax ñu dem door dem leen leen moom ñoom xaalis dana koy jëlee ci ma saa la te la sopp na ko am su ma ay bakkan seen de. laa fi ñu jàppale ci yéen am façon ci mala ci borom rek aji mala wala sa laqaaw wala sa laqaaw nag dafa leen ak malaaka alxames yi yow mooy des na si waaw su nekkoon ngeen soxla dana demal soxla ko def yow man nag nii des ko dana ma faxal sama aar sama am dafa ñu ci jëriñ dem faxal ñu malaaka ma ci daal di jëlee jëfi jëlee jëfi sama aadama njëriñ sama abada ma naka ma fa doon aw la xam nañ leen danañ liggéey ñu ngi leen bindoon te nekk leen woon di dara mooy loolu ñu jëloo ko fu ma sos lu nekkul dara mu sos ko muy dara yekkal ko de jaaxal ko de. waral li mu di dër ale naa war nañu yàlla naa la gënoon pour naa nekk na faa ñu ne looy def leen bële wala parce que daf naa bu ñu nangu ci sa boori ci sa boor mooy tere yàlla yi ba tere ñu ba di ci ñu ko naa bu ñu jëlal ñu waxoon ana ndaw la naka suuf suuf si aljanna yéen sa aljanna dam na koy ba dee jaam sama saa yoon yi ñooy ñëw ñu jaamu yàlla ñooy dëkk aljanna de ne fi alsa ne daal dina ko ci la ko la ko la ma ñu àggatal de aw ñu ne aw ñu ak ñu ñu door jaamu yàlla wa maa arsalnaaka lañu la yow Muhammad illaa rahmatan lil aalamiin yërmande lil aalamiin yàlla yéen a yéen yàlla Muhammad muy yéen ci moom mboolem bi ñu teg bi ñu ko waxal innamaa yow ha naka def na woyu ilay jëm ci man innamaa ilaahukum naka yàlla seen ilaah yàlla la waaye waalaan tuum si mooy waaye jëblu leen ay gawlo dem def nañ waxuloo xam alal tukum xamal na ma leen xare ala sawaay ñu mën a ji moom ngeen de omaa way naa dañuy yéen may bun ndax aji gëneñ la am bàyyi duñ am aji sore la maa toog dana dama doy leen ba fi mu bëgg yàlla ko xam ñu ne mu gën a xamal jaara ak bidal ñoo xamal ci waa mu gën a xamal ak moom la dañu na muy naa bëri jot naa xam laa la ndax li moom tey jëm yàlla laa la ndax li moom li ma leen solo gis na fi mu ndax la laa ko ci yéen wa mataaram te du jébbal laa yéen ba ci wax ñu jeexal gis seen de kon waxal rabbi yow ba wax sama donc comme yàlla ngaa te sama diggante ak ñun makkare bay dëru di laa ko ci dëru àddina seen diggante keroog xare bagar de wa rabbuna borom suñu rahmaanu mooy aji yërëm al mustaanu moo di suñu dimbali ko alamaa te suufoo na ci la da ngeen melal ko ji nar de ju seen ji waral yàlla doom ak bokkaale ak ju seen ji waral alquran njabat la waa ak way la